partir de l'Ouganda ma bëggoon wax que ci 2024 lépp luy juma mooy grande mosquée fu ñuy jullee le vendredi toutes les mosquées de Dakar seront pavées sans aucune exception toutes les églises et non les chapelles seront pavées te bëggoon wax que après le pavage des cimetières de Saint-Lazare et de Yoff ñu ngi song parking yi ak mur de clôture ñun lu ñu gëm mooy liggéey ku ñu bëgg a xeex xeex ñu feneen wante nga may ñu affaire ñu mën a liggéeyal suñu askan ak liggéeyal suñu dëkk loolu dama koy ñaawlu parce que ma bëggoon wax ci leer mairie de Dakar kenn fas yéene wul sukkandiku ci mairie de Dakar pour financer campagne man toog naa fii mairie de Dakar nekk ko maire dem naa élection législative te ñoom xam nañ fu may waxe jëlee wuñu ko fii te campagne nañu ñun soxluñu ay milliards pour campagne ñun lu ñu soxla pour campagne yàlla baaxee nañu ko ba pare mooy oto essence ak micro jeex na te lan la élection am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur wante norul doon excuse pour ngay xeex ba dugal ay nit ngeen xam ne ni seen yoon nekkul ci xeex jooju mooy askanu Dakar moo tax may sàkku ci président Macky Sall comme nee na nañ ko ko ñaan ci ci naka ci yar ak ci njëkk waaw kon nag ci njëkk nag ñu delloolu Dakar moom mooy suñu 3 milliards wax dëgg yàlla cinquante millions du ma ko jël du ma ko jël parce que man je ne suis pas là pour manger du ma yeluwaan du ma yeluwaan lu ngeen xam ni loi moo ma ko jox kon nag na ko ñëpp déggee noonu kon ren suñu demee ba état teg tànkam fu mu ko teg te bañ fa bañ ko fa jëlee na ko ñëpp dégg noonu ñun suñu projet ci continuer di ci liggéey wante lii di ndaw ñi sax seen école lii di ñu feebar ñu noonu lañ faj ak ñoom seen ku mu neex nag tamit taxaw ne man su ma yoon newu ci soo yoon newu ci ba bés bu nga ci am soxla te xam naa lu may wax parce que ci dëkk bi amul bés bu ma dul jóg ci dëkk bi ñëpp na ma meer dama bëgg a jàngi wala suma ma doom wala suma ma mbokk wala su ma lii wala su laa amul bés bu ma dul dox ci dëkk bi wala ma nekk bitim réew du ma jot message ne ma su ma yaay dafa feebar su ma pap su ma lii wala su ma laa donc képp ku fi taxaw nga ne su ma yoon newu ci ndax lan parce que peut-être bokkuñu gis-gis politique wala lii wala laa su la neexee nga toog tey ne su ma yoon yónnewu ci ba ëllëg ëllëg soretul moo tax na ko ñépp déggee nu ma ko waxee parce que nag wax dëgg yàlla man mënuma xeex xeex bu ngeen xam ne du suma xeex man lu mooy artu lu ma mën mooy yëkkati suma baat ak lu ma mën peut-être mooy sàkku ci état bi ñu dellu siwaat seen xel parce que lu ñu def Dakar tey balaa may dee may gis ay candidat ñu ne dañu bëgg doon président du Sénégal euh, ñoom fàtte nañu sax que lépp lu ñu fi tong-tongee ci suuf bi Dakar seen loxo ñu ci lu ñu fàtte ne que lépp lu ñu xem Dakar pour Dakar mën a gën a développé wu seen loxo ngi ci yéen ñëpp xam ngeen mas ngeen dégg lii di emprunt obligataire ville de Dakar vingt milliards ville de Dakar dem ba jot vingt milliards ñi taxaw fële yàq signature bi tey taxaw ne dafa bëgg a doon président du Sénégal su ko wante man lu ma gëm mooy askanu Sénégal bu ñu askanu mala dinañ fàttaliku démb ak bërki démb mbokk yi fu may daanale nag mooy ci deuxième point bi mooy ci dossier bu ñu Euh, woote fële ci cour suprême ñu ne le de décembre dossier wu fusillade bi mooy xeex bu amoon ci mairie Mermoz Sacré-Cœur dañ koy duñ ko àtte ma bëggoon leeral wax ci parce que moo tax may sàkku ci presque bi nañu xolaat nu ñuy bind nu ñuy xolaat nu ñuy présenter information bi parce que ci ci dëkk bi malheureusement am na ci ay mbokk yu bëri seen xam-xam demeewul noonu màccul noonu ci mbiru justice donc ñoom lu ñuy dégg wala lu ñuy lii moom la ñuy gëm ma bëggoon dalal seen xel.